ngeen jëf di rafetlu ànd bi ak Equivox TV ginnaaw biñ leen nuyoo dal nag jàmm ci seeni xibaar ñu koy dooree nag ak jéye bi am fële ca cité millionnaire bu Grand Yoff neegi ni démb rek nag la ab benn soxna la jëkkëram jàpp rekk dóor ko ba mu jëlee ci ay gaañu gaañu yu métti ñenn nag ci internet yi daal di génne woon démb rek bi di ne kii dafa daal ñàkk bakkanam ginnaaw nag bi ko jëkkëram boobu dooree waaye li ni mel rek dara amu ci ndaxte actuellement fi ñuy waxee ak yéen soxna si mu nga fële ca hôpital Idrissa Pouye bu Grand Yoff lii waral nag bi léejee ba léegi kenn xamagul lan la preuve yi wane na nag euh, loolu am na mooy image yi rek ak vidéo yi nga xam ne ña fa jotoon a teew jot nañ ko jël wane na wane na ne nag euh, kii di euh, xale bu jigéen bi gaañu gaañu ya métti na torop ginnaaw nag bañu ko dàqee ngir rekk sukk ba mu sukkoon ci kanamu moo du Kara Mbacké kii di policier bi di wuyoo ci turu Pape Bouba Diallo mel ni nag saa yu xëyee rek ay mbiram eh, di eh, gën a baax ndaxte nag kii di Bougane Gueye Dany daal di na ko rek eh, joxu ab liggéey liggéey boobu nag salaire bi mu ciy am rek di tolloog salaire ba mu doon am ba muy nekk ca police ba ak 3 mois de congé yoo xam ne da koy tëdd te dañ koy ek di fay ci trois mois de congé yooyu sëñ Modou Kara nag di dolli rek di sant ki nga xam ne moo di Bougane Gueye Dany te di ko ñaanal. waaye laata boobu rek ñi nga xam ne ñoo di murid yi dañoo takkoon jóg rek daal di collecté xaalis bu am solo lu tolloo ga ci 83 millions kii di bu ba jàlloo téye na ko fi mu toll nii boole ci ak boole ci euh, deux terrains yoo xam ne benn bi mi nga fële ca Touba benn bi nekk ci euh, Daaru Muxti dossier Assane Diouf kii di wuyo ci turu Assane Diouf ñu di ko dàkkantale rek l'insulteur public numéro un moom nag mi ngi am yaakaar ndax ni ndax nag bés ni ki démb rek lañ génnee dossier ma fële ca euh, tribunal correctionnel de Dakar lépp lu si mën a am rek dinañ ci delsiwaat ndaxte tey rek la tribunal bi di jël position ci boobu euh, boobule mbir daal di jël woto rek dem ba Kolda kii di euh, Baba Malabe doon woote nag yonenti fële ca Saare Ngagne nekk ci euh, Kolda daal di nañ ko arrêté. kii di euh, Baba Malabe nag ñu ngi koy toppee li nga xam ne moo di détournement de mineur ak pédophilie li gën a doy waar nag ci mbir moomu mooy Baba Malabe da doon def li nga xam ne moo di konk binage ñu gën ko xam rek euh, maanaam nekk koo xam ne du soxnaam boole ci muy euh, mineur actuellement nag fi ñuy waxee yow kii di euh, Baba Malabe mi ngi nekk fële ca brigade bu Kolda. ñii di yeewoo ci boobu le gox rek doon xaare lii ci Baba Malabe ndax nag bi muy ñëw foofu noonu daf leen a fekk ak seen propre religion ak seeni coutume mu ñëw rek bëgg a imposer boobu le mbir. ba tey rek ñuy wéyal xibaar yi ci Equivox TV lu yees si génn bu àdduna Serigne Abdoul Aziz Sy ibnu Serigne Moustapha Sy Jamil moom nag autopsie bi di wone ba léegi rek ne kii di doomam bu góor moo ko daal di poignardé ba mu ñàkk si euh, bakkanam li waral bile bile jëye nag mooy euh, kii di doom bu góor bi dafa xamle ne rek kër ga mu nekkoon dañ ko fa marginalisé maanaam joxuñ ko fa gëdd euh, benn yoon waaye nag kii nga xam ne moo ji waajur bu jigéen ci xale bu góor bi daal dina génn. génn moom itam xamle rek ne euh, kii di doomam bu góor juróomi at a ngi nii rek dafa am ay trouble mentaux maanaam bopp bi dafa xaw a dese waaye doom ji nag biñ ko tegee démb à la barre moom dafa xamle rek ne lii mu def ba mu koy def rek mi ngi ànd ak xelam maanaam dafa li si doon ñu àddu jëmale ci euh, coronavirus nege ni tey nag ci àjjuma bi euh, point du jour bi euh, daal dina génne ci deux mille deux cent quatre-vingt-six tests deux cent dix-huit ñoo ci jota positive ci deux cent dix-huit yooyu nag am na ci soixante-neuf cas contact ak cent quarante-neuf cas communautaire waaye ci noonu am na ci cent cinquante-deux patients guéris ak trente-cinq cas graves yoo xam ne ñu ngi réanimation ak dix décès. ba tey rek may desandi ci euh, coronavirus feebar bi di gën a jàllaañoo fële ca Touba bés bu ñu xëyee rek kaaya di gën a yokk nege ni démb rek 29 euh, nouveau cas lañ fa am ñu daldi di positif ak 11 cas yoo xam ne rek dañoo nekk ci état bu grave ak ñaari décès ñooñu yeewoo ci boobule gox rek nag di euh, tiit torop ngir recrudescence boobu nga xam ne am na ci boobu boobule dëkk ndaxte saa yu ñu xëyee rek mbir mi dafay gën a law ci boobu boobule dëkk. déclaration de Serigne Babacar Sy Mansour di xalifa général des Tidjane dinañ ko xaar ci arjuma ji à 10 heure ngir rek mu ñëw ci li nga xam ne nag moo di recrudescence su feebar bi di coronavirus ci kanam tuuti dinañ ci dellusiwaat rek ngir rek gën leen a faram fàccal. voilà chers téléspectateurs yegg si nañu ci càppaan bi ñu leen di jox rek dig daje ëllëg incha allah.